Bienvenue sur Salam Vision. waaw tur bi mi ngi nekk Elimane Seye nekk doom ci paa bi waaw maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp yi nga xamante ni moom mooy télé yi fi ñëw ak site yeeg euh, internet mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen dalal naan leen jërëjëf jërëjëf euh, mu mel ni rek ab njàqare moom moo tax nga wooñu te mooy rek euh, sa wajur bu góor di wu ma turu Mamadou Seye suma juumul euh, dafa jot a jot jël li nga xamante ne moom moo di vaccin contre li nga xamante ne moom moo di coronavirus va vaccin AstraZeneca mm-hmm. ni ki le 12 mars 2021 mais nag ngeen seetlu ne jamono jooju ginnaaw bi mu ko jëlee ci la daanu feebar ndax mën nga ñoo diktal naka la mbir mi demee en détail waaw yaakaar naa ne pa bi ku ko xam ku si nekk gis na ko ci activité am mi ngi actif le 12 troisième mois 2021 bii nii la jël vaccin bi nga xam ne moom la ñuy wax AstraZeneca bi ko jëlee moom la tëddal ba ba ci guddi gi mais ba ñu yeewoo ñu ngi koy fekk mu daanu ci néeg bi suñu tijjiwul woon dañuy fekk mara day taal leneen day am ba ñu tijjee nag si lañ ko gis mu daanu ñu jël ko évacuer ko en urgence à l'hôpital de Yëmbal fi nga xamante ni moom la defee vaccin bi ba mu ko évacuer foofu noonu quelque temps ñu def premiers soins yi après si la ñu yebaleek ambulance ambulance boo xamante nii il n'y avait même pas de biir ambulance bi amul ñun kase ñoo nekk ñu ne ñu gi nag ñu gis ne paa bi mi ngi mel lañ ko jëlee évacué ko yóbbu ko hôpital Dabakh Malick bu Parcelles gars jël ko en urgence ñu siy dépensé xaalis bu bëri yaakaar naa ne bu nekkoon beneen famille la tamit dinañ sonn trop parce que famille ay famille diminué lañ nekk loolu noonu bañ ci gisee ne vaccin bi la le 12 damaa waat fi nga xam moom mooy hôpital bi nga xam la vacciné woon dem pour amaat confirmation ak certitude ci kanamu médecin bi ma fekk fa médecin chef Dieye bi nga xam moom moo nekk à l'hôpital de Yëmbal il a confirmé affirmé a effectivement vaccin bi la vacciné wu fii nii te c'est à l'heure te ci lendemain bi tamit la daaneel ñoom ñoo joxe résultat yi ne sax pa dafa AVC te ce que nous dénonçons koo xamante ni bu nekkee ministre bi ou bien le président de la république ou bien quiconque boo xamante ni ñi ngi testé ay médicaments waruñ koo testé suñuy papa yi puisque nag le coup est déjà parti ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko testé suñuy papa yi ba nga xamante ne daanu nañ dañ leen di wax ñeen jël seeni i responsabilité ñeen ñëw jël seen i responsabilité parce que nous dépensons lourd ñi ngi dépensé lu bëree bare bare bare pour pas bi jóg parce que benn parti bi dafa presque dafa paralysé benn parti dafa paralysé ñu ngi si def suñu kéemtalaay kàttan tey woo état nag naan ko ñu jóg ñëw jël seen i mesures de précaution sinon beneen soulèvement yaakaar naa dina fi am. parce que def nañu ay enquête ñu bëri mi ngi leen xaw a daaneel si yenn anam ce que nous alertons à l'opinion publique na leen ñu wax ne état mu alerté loolu noonu pour mu arrêté vaccin bi nga xam moom la wax AstraZeneca. dafa mel ni danga ne euh, sa waajur bu góor ginnaaw bi nga xamante ne la euh, vacciné wu la daanu AVC. dafa daanu automatiquement dafa daanu. sur le coup la daanu AVC automatiquement ba ñu demee def analyse bi dafa daanu AVC kanam yëpp a kii parce que ba mu commencé retrouver wu connaissance sax yàggul yaakaar naa bërki démb ak démb la commencé am connaissance tuuti di xàmmee ni ñi ak ak wax tuuti tuuti tuuti tuuti démb ak tey lañ ci commencé amay kii nii ce que nous alertons daal ñu ngi koy alerter ak état bi di leen wax ne vaccin bi nga xamante ni tubaab yi ngi naan baaxul ñun Sénégal fii nii nous donnons l'exemple pour affirmer leen ne vaccin boobu noonu arrangé wul suñu parents yi te mi ngi rey suñu parents yi li tax ñu def ko nekkul parce que suñu papa li koy dal dal na ko pare mais pour mu bañ a dalaat keneen parce que bu ñu bàyyee mu sedd noppi tamit def benn muet boo xam ne koy def day dalaat beneen parent dalaat beneen parent parent ñu ne ngi leen wax daal état en grosso modo ñu ñëw jël responsabilité ci cas énormément parce que cause bi moom la waaw. ndax xamante ne vacciné wu na fii ci kër gi. non parce que dafa respecté cadre étatique moom bañ ne état bi nee ña vacciné moom loolu moom moo si doon soñu nit ñi sax di sensibiliser nit ñi ne puisque état moo wax loolu noonu ñu leen dem vacciné wu ji chaque jour que jëfee man damay yónni nit ñi sax ne wax leen ko mu vacciné wu puisque moom na am na esprit de patriotisme bi nga xamante ni état am woote na ne vacciné wu leen moom mu dem vacciné wu ji patriotisme boobu mu am ña ko état rendre xam ne ni moom moo ko tax mu daanu actuellement à l'heure actuelle état moo ko mettre au chaos parce que état moo jël yaramam def ko kabooy testé vaccin boo xamante ni baaxul ci moom kon ñoom ñeen ñëw jël seen responsabilité sinon message bi na yegg fépp fu mu war a yegg fu mu war a yegg incha allahu rabbi loolu lañ amoon ci nga xamante ni moom la ñu leen di wax moom la ñuy wax état di alerter ki nga xamante ni moom mooy ministre de la santé Diouf Sarr yow yaa affirmé ne vaccin bi dañ ko war a continuer vaccin bi ñuy continuer nag vaccin bi baaxul arrangé su ñu parent yi te vaccin bi ngeen njëkk a vacciné wu en première vous les autorités vaccin boobu noonu valable baax na pourquoi vous avez changé de vaccin pour nos parents si c'est pour tuer nos nous allons alerter te dinañ def soulèvement boo xamante ni incha allah rabbi bu ngeen deful réaction dinañ ko def dinañ ko ñaxtu ak nuñ ko mënti ñaxtoo dinañ ko ñaxtu si kàttanu yàlla kooku la ñu am lu ñuy wax. une dernière te mooy ndax jot ngeen am nouvelle pas bi jamono jii nii. waaw nouvelle pas parce que chaque jour que jëfee dañ fay nekk parce que dañuy permettre chaque jour que jëfee chaque jour maa koy gis chaque jour maa ngi dem gis nañ état mu mel parce que bu nekkoon keneen kuy ñu neen yàlla moo tax yàlla xaw ñoo may sax lim ñu siy may muy am ay réaction di ñëw nii te am nañ njort bu rafet ne dina dikkaat ak formam mais daal li ñuy wax alerte état mooy ñu ñëw jël responsabilité parce que koo xam ne danoon dox normal koo xam ne danoon dem kii nii ba partem di paralysé ba ni muy waxee waxam leerul ba léegi sax lañ ci ko commencé am yaakaar vous avez essayé vos kaboy ñëw seen kaboy yi ngeen kii nii ñëw leen ngeen jël seen responsabilité vous l'état ak ñi nga xamante ñoom le la santé Abdou Diouf ñëw jël seen responsabilité ki nga xamante moom mooy paa bi ak ñeneen ñi nga xamante ñoom la dal la ñu leen di wax te di leen âge ah, mi ngi am soixante-dix ans pape mi ngi am soixante-dix ans la am waaw soixante-dix ans la am fii la dëkk à yëmbal waaw loolu loolu la am nii te man ma man doomam la nekkuma taawam mais suñu kër c'est hiérarchie mooy daw dañ maa responsabilité moo responsabilisé moo tax ma mën a jël kàddu yi nga xam ne moom mooy kàddu famille bi di leen jaajëfal naan leen jërëjëf ba beneen yoon incha allah rabbi vaccin AstraZeneca euh, ni ki le 12 euh, mars 2021 euh, mais nag ngeen seetlu ne jamono jooju ginnaaw bi mu ko jëlee ci la daanu feebar ndax mën nga ñoo digtal naka la mbir mi demee en détail waaw yaakaar naa ne pa bi ku ko xam ku si nekk gis na ko ci activité am mi ngi actif le 12 troisième mois 2021 bi nii la jël vaccin bi nga xam ne moom la ñuy wax AstraZeneca bi mu ko jëlee moom la tëddal ba ba ci guddi gi mais ba ñu yeewoo ñu ngi koy fekk mu daanu ci néeg bi suñu tijjiwul woon dañuy fekk mara day taal leneen day am ba ñu tijjee nag si lañ ko gis mu daanu ñu jël ko évacuer ko en urgence à l'hôpital de Yëmbal fi nga xamante ni moom la defee vaccin bi ba mu ko évacuer foofu noonu quelque temps ñu jëf premiers soins yi après si la ñu yebalee ak ambulance ambulance boo xamante ni il n'y avait même pas de médecin boo xamante ni mi ngi si biir ambulance bi amul ñun kese ñoo nekk si ginnaaw ambulance bi dem defal ko scanner ñu ko delloo suñu biir kër bañ ko delloo si biir kër gi nag ñu gis ne paa bi mi ngi mel ni kuy dem si lañ ko jëlee évacuer ko yóbbu ko hôpital Dabakh Malick bu gars yi jël ko en urgence ñu siy dépensé xaalis bu bëri yaakaar naa ne bu nekkoon beneen famille la tamit dinañ sonn trop parce que famille ay famille diminue lañ nekk loolu noonu bañ ci gisee ne vaccin bi la le 12 damaa retourné waat fi nga xam moom mooy hôpital bi nga xam la vacciné woon dem pour amaat confirmation ak certitude ci kanamu médecin bi ma fekk fa médecin chef Dieye bi nga xam moom moo nekk à l'hôpital de Yëmbal il a confirmé affirmé il à l'heure te ci lendemain bi tamit la ko daaneel ñoom ñoo joxe résultat yi nañ sax paa bi dafa AVC te ce que nous dénonçons parce que suñuy papa du ay kaboy du ñu ay kaboy kenn koo xamante ni bu nekkee ministre bi ou bien le président de la république ou bien quiconque boo xamante ni ñi ngi testé ay médicaments waruñ koo testé suñuy papa yi puisque nag le coup est déjà parti ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko testé suñuy papa yi ba nga xamante ne daanu nañ dañ leen di wax ñeen jël seeni responsabilité ñeen ñëw jël seeni i responsabilité parce que nous dépensons lourd ñi ngi dépensé lu bëree bare bare bare pour pas bi parce que benn parti bi dafa presque dafa paralysé benn parti bi dafa paralysé ñu ngi si def suñu kéemtalaay kàttan tey woo état nag naan ko ñu jóg ñëw jël seen i mesures de précaution sinon beneen soulèvement yaakaar naa dina fi am. parce que def nañu ay enquêtes ñu bëri mi ngi leen di xaw a daaneel si yenn anam yi ce que nous alertons à l'opinion publique na leen ñu wax ne état mu alerté loolu noonu. Bienvenue sur Salam Vision.